maa ngi sant yàlla maa ngi sant yàlla dëgg la nit yaa ngi wax maa ngi dégg tamit. parce que si dëkk bi laa dëkk. Euh, ñu jaa ngi wax ne way man sama candidature candidature u Macky Sall la u lii ak lii ak lii euh, may ne sénégalais man c'est-à-dire may xam Macky Sall peut-être ñu bëri xamuñoon kuy Macky Sall quatre-vingt-dix laa xam Macky Sall ñu dox ñu ànd ànd bu rafet mu doon sama grand frère soxnaam nag mooy sama xarit mooy sama sœur te du loolu dara du ko dë man politique nag du ma texale nit ñuy dem di dox Macky Sall ma yore 93 coordination du parti démocratique élection parti démocratique sénégalais am benn plateau bu 500 mètres carrés à la défense mu ñëw di ma si jàppale. boobu étudiant ISP la donc ñu am ay relation yu takku j'en passe ñu jàll Macky Sall nekk na sama ministre ba ma nekkee directeur général li ma mës a def xam na si dara si courant bi Macky Sall nekk na sama premier ministre ma nekk ministre de l'énergie yàlla def peut-être tey sénégalais yi xam ko parce que depuis 2008 2009 la ñu xam ne pétrole amoon na te moom Macky Sall liggéey na si liggéey bi nga xam ne bu am solo pour ñu def extension wu période bi parce que moo tax tey li war a am am mais loolu beneen affaire la mën nañ si wax beneen ñu ànd si ànd bu rafet keroog bañ koy complot neexuma woon parce que sama xarit la euh, mais loolu taxul ñu complot ko mu wàcc ma continuer am ay relation ak moom et surtout soxna mooy sama sœur te loolu moom ku Sénégal yëpp xam na ko ñu dem yàlla def tey mu nekk président la république ma naqar le fait que mu arrêté Karim Wade premier quoi bu ñu am loolu la woon sama xol jeex keroog ba muy ba muy dugal Karim Wade kaso ba ma mere ko di contre naa contre naa ko di ko bind di bind lu nekk ba faf sax mu dugal ma si kaso bi te maa ngi see sant sama sëriñ sëriñ Cheikh Saliou bi nga xam ne moo ma ñaanal ma génn si mu ko ñaanalee mu ne ma àndal ak moom ànd bu rafet teggin te bu ko saaga bul waxati wax lu ñaaw si moom si loolu laa nekkoon ba jamono boole ma constaté ak ñi ma àndal ne dëkk bi doxul su dëkk bi nag doxee si yéen ngeen wax ma mais dëkk bi doxul ma wax leen ko mën ne ko 70 pour cent ñi la wër xamuñu dara yow yaa ngi liggéey ba 2 heures 3 heures matin parce que soo doon soo soo àndoon ak nit ñu mën a liggéey loo liggéey ba 3 heures du matin ñu ànd ma ne ko nag man damay damay dem damay présenté wu te ñi ma àndal ay gor lañu. ay responsable lañ ay professeur d'université ay chef de parti man du man PDS du man man sama parti libéralisme social la mu ànd ak ay jeunes ay jigéen ay kilifa xam nga ñu ne nañu ànd benn kuréel def mouvement 19 loolu duñu dellu gannaaw gannaaw yàlla teg nañu ci yoon bi sëñ Cheikh Saliou ñaan ñaanal nañu parce que ñun duñu laajte ndigal dañuy ut ñaan sàkku ñaan yëgle sàkku ñaan dañaa bëgg mu leer dem si xalif général di mu tey ñu ñëw Njaasaan euh, kilifa bu baax bi fi nekk te nga xam ne mooy doyen yu xalif généraux te ya ma yàgg jëflante ak moom si yu bëri démb ñu ngoon si laayeen yi tamit ma yàgg jëflante ak ñoom mm. peut-être euh, ñu ngi see am nañ si yaakaar lu tax ñu am si yaakaar parce que suñu offre politique bi ngeen di laajte dinañ leen ko wax ñun wax nañ leen si lan lañu la bëgg yëngu am nañu ay solution si yu bëri euh, solution ndox bi <laughs> tu sais on ne réinvente pas kenn du kenn du wax Ablaye Wade bàyyoon na fi ñaari projet désalinisation suñ ko defoon du problème du am problème mu gestion wu euh, contrat wu SDE bi suñ ko teeloon jóg delloo ko SDE au lieu bëgg see micmac pour jox si seen ay tubaab man man li ñaan yàlla sax mooy Macky Sall am même humilité que François Hollande mu ne mu fàtte lii mu jox mbir bi keneen ndax Sénégal jëm kanam ñu ànd ak gor yi ñu liggéey pour leneen